vue pour le plaisir pour euh, un peu de loisir waaye malheureusement souvent suñuy déplacement day xaw jafe waaye am na ñu ci jot a gis bi ñuy dugg rek ñuy gis xale yi nga xam ne ñoo yor club de natation bi te defe naa bërëb bi rek lañu am pour def seen natation ak di préparer wo parce que ñoom compétition la ñuy def ñu ngi woon saa xale boo xam ne gën saa bëri defe naa waragul am 10 te nee na ñu daaw def na Dakar Gorée xam naa moom Ousseynou Ly moo ko tëmbaloon fële léegi waa waa waa Medina jaaxle kon gis nañ ñi fiy def canoë kanak nga xam ne sport olympique la sax d'ailleurs di sport bu am solo ci defar yaram voilà am nañu qualifié jeux olympiques euh, gis nañ ñi nga xam ne club de natation yi la madame la ministre des sports mi wax léegi même président club natation mi ngi fi donc da di bërëb bu am solo ci ndakaaru rawatina ci plateau waaye jàpp naa nit dina jóge fu ne ci Dakar ñëw fii parce que c'est pas l'exclusivité de plateau loola taxoon bi ñu xamee li ñu xam ci bërëb bi président de la république moom ci boppam ne ma faw nga doxantu ba foofu gannaaw boo jógee Colobane waxtaan ak ñi fa ne waaye waxtaan ak senegal yëpp muy ak sénégalais yi ndax sénégal yi dañoo wóolu son excellence le président Diomaye Faye def lu musul am ci Sénégal wala sax ci Afrique mooy dès le premier tour opposant ñu fal ko ci score biñ ko falee ah du ma ne musul am ci Afrique waaye néew na peut-être loolu du li am solo te ci base ban lañ ko falee base jub jubal ak jubbanti base souveraineté mooy moom suñu bopp base patriotisme waaye base fexe ba alalu réew mi ñu koy delloo ci loxo doomu réew moo tax bi ñëwee ba léegi dafa am liggéey bu ñu door liggéey boobu nag faw mu ànd ak communication ma bëgg sénégalais yi di fàttaliku toujours Sénégal dañoo yàgg bëgg am nguur gu jub nguur gu maanu nguur gu jiital ay valeur ak ay principe nguur guy taxaw ak di liggéey uniquement pour askanam te du ci seenu dara ma jàpp ni nag yàlla may na ko Sénégal ci jamono ji te mu may ko Sénégal ci jamono joo xam ne dañ ko soxla woon loolu bu amee nag Sénégal yëpp dañoo war a ànd rek nguur googu suñ ko joxoon benn nañ ko jox juróom ndax bu baaxee Sénégal lay baaxal bu baaxal président Bassirou Diomaye Faye kon ci loolu bi ñu ñëwee ba léegi ci jub ak jubanti am na yu ñu sumb yoo xam ne Sénégal lañ ciy teg seen bët yàq bi ak yàqute bi ci biir réew mi egg na foo xam ne Sénégalais yi xamuñu waaye bis mu ne mu am tuuti luñ ci ñamal lu leen ci ñamal dina am lu bari luy feeñ ci fan yi di ñëw ak weer yi di ñëw ba gis ko am na ñu leen commencé mosal ñu koy gisal seen bopp ci anam googu lañ fi teewee ndax bërëb bi koo gis ak ñi ñu ci fekk lee may gis ne leen rafet na lool ci jamono tàngoor bi ndakaaru lii rek lañu am mun a ñëw amaana ñëpp amuñu doole boo xam ne mun nañ taal clim journée bi yëpp wala taal ventilateur bi journée bi yëpp waaye nee ñu nekkee ci biir ndox mi di féexal seen xol di ci boole nag tàggat yaram loolu dafa am solo bu ñëwee nag toog gis ni bërëb bii yëpp nag lu ko dooree fële ci gannaaw ba fu mu sësee li ko dooree ci kaw tali bi ba ci suuf dagg nañ ko def ko lotissement ba jox ko ay nit li muy firndeel mooy buñ ci jógul fileeg ay fan kenn dootul mën a am accès ci bërëb bi li ma bëgg a foofu ci gàttal mooy biñ ñëwee commencé di saytu mbir yi ci la ñu tombé ci ay lotissement yoo xam ne fii nii ñu ngi ko def novembre novembre deux mille vingt xanaa ku yor nguur di dagg di dagg di dagg ñu la li ngay dagg ëpp na ba mu des ñaari weer wala ñetti weer nga war a dem rawati nag bërëb bu mel nii nga war a maanu nag ba ko fa waaye ci tableau bi ma leen di woon gis ngeen ni fii ñu nekk nii depuis ci kaw ba ci suuf ci tali ba ci suuf xam nga lii mooy pour football ci kaw lépp dagg nañ ko jox ko ay nit ñi ñu jox leen 5000 mètres carrés ñii 3000 mètres carrés ñii 2500 mètres carrés ak yu mel noonu muy lu doy ndax fii en principe ci domaine public maritime bi la bokk domaine public maritime nag bul laal la tudd même procédure yi nga koy jaar pour déclasser ko sax compliqué na compliqué boo xam ne waroo ko mën a laal bu doon sax ci te titre état la nekk. bu doon dañ ko déclassé mu nekk titre état waay waay xam nga ni lii dese Sénégalais yi ci mun ñu mën a am accès à la plage nga war ko mën a bàyyil Sénégalais yi ndax fii koo fi jox 5000 mètres carrés dafa mel ni jox nga ko 10 milliards ndax ñi ngi jaay boor yi mètre carré 2 2 millions de francs 1 million 800 2 millions kon koo fi jox loolu gorul yattul wëbati ko jaay ko ay nit yoo xam ne projet hôtelier la ñu am lekk na ci cinq milliards te gorul yattul lii nag firnde bu ndaw rek la bu ngeen gisee ñu lancé li ñu lancé ci tout le littoral bloqué trabo yi ñuy def yëpp mettre en place une commission te commission baa ngi def liggéey bu mucc ayib te biñ koy door nag ba mën naa ne semaine passée lii xamuñu ko woon mhm. donc lii dafa ñëw yokk ci bu ñu gisee lool teg commission boobu muy def liggéey bu mucc ab ba nga xam ne ci jamono yi di ñëw dinañu livrer au Sénégalais les conclusions lañ ci bëgg a wax ak Sénégalais yi mooy ni ñu yore woon Sénégal ñaaw na ko ku ñaaw yëm baadoo la amu fi woon ak amu fi woon yelleef waaye les mêmes ñoo doon wër diggante suuf si ressources naturelles yi muy or bi di pétrole bi di Euh, zircon bi phosphate bi ak ressource halieutique yi muy géej gi nga xam ne la ca nekk ci jën lépp niñ ko yore woon mardi taal loolu mooy suñu combat ñëw bi fii prétexte rek la mooy suñu combat ne la ñu déglanteeg sénégalais yi mooy Sénégal dañ ko delloo ci loxo sénégalais yi te mu war a dem ci fànn yu yaatu loolu moo tax son excellence le président Bassirou Diomaye Faye te mu wax leen ni saa su gisee yu mel nii man boo ko xoolee sax dama koy yërëm ndax xam naa ni xolam dina métti ba ko métti yam moo tax mu ne ma na nga dox lu mel nii parce que lu cëru président léeg-léeg muy wàcc ci yu mel nii su du woon loolu mooy wàccal boppam ñëw wax ak Sénégalais yi gis ngeen problème mbuurkat bi mu amee moom moo wàccal boppam dem ba Thiès ba mbuurkat ba mu fi jógee joxe na ay ndigal ba jël récupéré nañ ko lu ëpp soixante-dix mille parcelles yoo xam ne ay politiciens ay fonctionnaires ñoo ko séddoo loolu moo xew ci réew mi ñiy dalal xelu ñëpp nag ni président de la république jox na ndigal ñu dakkal lotissement boobu ci loo xam ne amul négociation amul am naa droit am naa titre lu Sénégal yëpp moom bu dee nag la ñu joxe woon ba tey nit ñi di fa tabax wala tabax nañ ba noppi la ñuy xool naka la ñuy def ba fépp foo xam ne waroon na permettre Sénégalais yi am accès à la plage ñu delloo ko Sénégalais yi fu melul noonu it ñu jàpp ni bu dee ñëpp dañoo bokk dara mu am ko jaakaar ni moo ko gën a bëgg nit ñi ba akki moo ko war naa mën a fay taxe yu cher pour compenser ñu ca liggéey googu la ñu nekk te noonu lañ koy doxalee ci fànn yëpp nag ci ressources naturelles du foncier urbain bi kese waaye bis bu ne ñu yégal ñu ay problème yu am ci foncier rural bi ci àll ba ci tool ya li ñuy ñaan sénégalais yi nag ci président wax ma ma waxaale ko fi mooy seet nañ ñu bëri nag dañuy bëgg a fajal seen bopp ñu bëri dañuy bëgg a fajal seen bopp léeg nit ñi jóg ne ñoom ñooy dem nangul seen bopp gis nañ ne xew barki démb ci ICS nga xam ne population yi ñoo jóg dem baare raay bi loolu du seen cër bu ñu dégg tam ñu ne nguur gu bees ñëw na te nguur googu nee na dafa bëgg lépp jaar yoon na jub ñu nekkoon am nañu prétexte pour defal suñu bopp déedéet ça c'est des prérogatives régaliennes bu loolu amee nañ ko signaler nañ ko war a signaler buñ ko saytoo ba xam ni lii tegul ci yoon lañ ci war a def nañ ko def mais du population mooy jógal boppam ne maa ngi dem régler sam bopp loolu it mënuñu koo nangu parce que day jur li ñuy wax anarchie mooy jaxasoo kon ñi ngi ñaan ñëpp muy ci wàllu ressources naturelles yi muy ci wàllu suuf si ak beneen fànn bu mu doon ñun de état bu am ubbeeku la ñu ngi déglu ñëpp bu ñu saisiré ci ay situation yu am dinañu déglu ñëpp nag Colobane bi Colobane bi ma jógee déglu naa riverains yi déglu naa commerçant yi ñu déggee piir déglu naa préfet donc loolu la ñuy doxalee bu ñu paree dinañu xool li nga xam ne mooy jaadu moo jaadu te mooy yoon ñu doxal ko kon ñuy ñaan population yi ñoom it ñu bañ a di essayer régler seen bopp ñun lu ñu yëg rek nañ ci def liñ ci war a def moo tax président ni fii amul droit acquis amul am naa sama bàyyi mënuñu permettre nit ñi parce que am nañu moyen wala ñoo yoroon nguur di séddoo loo xam ne lu Sénégal yëpp war a bokk la moom ko war cee mun a accéder à tout moment kon ñu xam ni ci liggéey yooyu la nguur gi nekk système nag boo ko songee faaw rek mu am ay résistance parce que ay intérêt nga song ay nit yoroon toogoon ci ay avantage moo tax lappi-lappi bi bëri coow li bëri waaye lu mën a fees suñu bët amut li ma waxoon ku fi jël loo warut a jël da nga ko delloo askan wi parce que alal mbooloo bàyyi ko fa la tudd waaye nag président sant moom wax ak askan wi yëpp dafa am loo xam ne du xeexu président Bassirou Diomaye kese du xeexu premier ministre Ousmane Sonko ak nguuram ak gouvernement ñun li ñuy liggéey dañu bëgg li ñuy wax portage bi mooy ñi ko war ñu ko war a njëkk a yenul seen bopp sax mooy askan wi ñoo ko war a njëkk seen bopp moo tax du ñun ñoo xam ne dañuy tëju ci ay bureau di réfléchir si suñuy plan suñuy programme sénégalais boo laaj lan mooy sa programme xamu ko déedéet su ci fan yu néew lañ doon bind ci référentiel bu bees bi nga xam ne mu wara a tënk juróomi at yi ñu jëm waaye lu ko wees fii ba deux cinquante li ñu bëgg ci Sénégal dina pare dinañu dajale ñëpp waxtaan ceeg ñoom rawatina nag jeunes yi lañuy wax jeunes yi ñaar la ba njëkk mooy patience àdduna xëyul sotti ci benn fan ñoom ñooñu wóolu ba dénkuñu ñetti weer lañu ñu defagum est-ce que fa ñu teg suñu tànk foofu la am déet loolu la ñu war a njëkk a xool ñuy dem ndànk-ndànk bu soobee yàlla fañ jëm sénégalais bu ne dina gis boppam ci lañuy ñuy liggéey lañ leen di sant mooy ñu bañ a xeeb dara te it toujours ñuy laaj seen bopp lan la ñu war a mën a jëriñ suñu askan wi lañ ni buñ la dénkee sa a liggéey comme ni ñuy wax sa ndeyee liggéey topp da nga war a teral sa bopp tedd teddal teral sa say mbokk te si ne ban anam nga koy defee du salaire bi ñu lay fay def waaye alalu réew mi ngay teq suufu réew mi ngay teq oru réew mi ngay teq ak yeneen ak yeneen loolu moom moo yàq réew mi kon le don de soi pour la patrie bi ñuy wax man de jàpp naa ne mi ngi ci man jàpp naa ne mi ngi ci ñu bëri ci ñuy àndal waaye dafa war a doon loo xam ne dafa war a nekk ci sénégalais bu nekk ñam ngeen fi ay loxo gis ngeen li mu jur gis ngeen ay loxo yu yees yu ñëw te gis ngeen jéego yi ñuy teg bis bu ne ñu nga ci liggéey boobu newoon nañu ñu mën a wàññi dund bi wàññi nañu dund gi te mën naa leen ne démarre commencement rek la bu soobee yàlla parce que lii suñu mbibit mooy ñu dem ba suñu tudd réew yi gën a yomb ci at ci Sénégal ci ci njëkk ñu tudd ci Sénégal balaa ñu tudd keneen suñu xëyee suba ba ngoon jot benn yitte lañu am mooy askanu Sénégal neewuñu fi pour jouissance wala pour lu ñuy amal suñu bopp yàgg naa wax ni lii ñu jiite samay ministre ñi taxaw ci ñoom laa ko commencé wala ci sama bopp sax laa ko commencé mooy lii ñu jiite sacerdoce la mooy mission la bu ñu yenu ñun ñun ñoo taxaw ci kanam senegal yi ne leen dénk leen ñu kenn fekk ñu suñu kër forcé ñu ne ñu génn leen kon bu ñu defee lool ba dénk ay ndaw yu bari ñàkk seen bakkan ñun waratuñu lekk waratuñu naan waratuñu nelaw te waruñu am dërëmu askan bu ñuy d'accord mu dugg ci poosu kenn ci ñun ci loo xam ne lewut loolu lañu mën a diglanteeg askan bi waaye li ñu xaar ci askan bi mooy ñoom it dañu def bloc nañu def bloc fii rek ñun fi ñu war a teg suñu tànk ñu ngi ko fay teg na askan wi def bu ñu leen woowee ci liggéey woo leen ci suñu grand programme yi lancé na askan wi yëpp jógandoo ndax askan mooy defar réew mi de donc loolu moo taxoon ñu jaar fii te di leen jox garantie ak assurance niñ ko fas yéene def feneen ak feneen ba ci nit ñi ne ci kaw gi te ñu nangu seen suuf ci lu dul yoon ñu leen yu garantie ni ñun askan bi lañ ci nekkal priorité bi mooy intérêt askan wi te bu soobee yàlla bërëb bii nii mu mel nii nit ñi di fi mën a ñëw féexul du ñu bàyyi kenn mu def safaan waaye mieux sax encore incha allah ministre euh, euh, urbanisme ak aménagement territoire mi ngi nii bi ñuy ñëw gis nañu fi ngay jaar ba egsi fii monsieur le ministre dama bëgg un programme d'urgence pour que ñu aménager bërëb bi ba mu doon ba mu gën a ba mu gën a yemb ba mu gën a méngóog bërëbu feexlukaay te ñu jox garanti ni bu soobee yàlla euh, euh, lañ ca mbëbatoon ñoom ba def ko ci xaw ko ci def alal wala ko ci deful ndax yàgg ngeen ñu dégg nag ñuy wax gars yi ne leen bàyyi leen littoral bi te ku fi def sa alal yaa tooñ sa bopp yàgg nañ ko wax démb tey doog a ñëw kon lii moo ne woon message bi woon waroon ko andi ci turu son excellence le président Bassirou Diomaye Faye ñu leen di gërëm di a sant asalaamaaleykum. dinaa jox benn contribution sur la migration à avancer.